isaa jaa benn yoon qul huwa allahu ahad fanweeri yoon ak juróom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi